Vatto lave, vatto lave, vatto lave, vatto lave, lave. mooy waaw mooy luy xeeñ fii hmm? xamoo ko ah booy man xet gi man jaaxal na ma daal fii laa nekk xet gi di ma bousculer hmm? wax nga ne dégg ma moom depuis quand nga muuma hmm? yow laay wax ak de ma laa wax tontu ma pourquoi odeur dans la samba da doon wax. waaye xool. dama ne dama ne sànq sànq da ngaa wax waaye la ma sa daj sama nooy mi aju doo waxati yow boy. Mm-hmm. waaw waaw waaw allo I love you kay Amara boyfriend too I love you very much I love you too nga ne yaa ngi yaa ngi nii si bopp koñ bi rek si bopp koñ si koy ànd ak benn capitaine am capitaine bu mool bu mool bu mool bu xees picc kooku yéene sama gaay bi si bàyyi nga def bàyyi nga def gëwuma loolu yéen a ngi ñëw nii nii nii nii nii nii tout de suite si si si si si xoolal waaw d'accord d'accord maa ngi ko koy wax dégg moom kay moom xoolal lépp laa koy wax lu nag daal na si quatre-vingt jéem nga ko waay waay lii neex na waay waa merci ciao ana xale yi fu ñu toll. nga ne. ñu xale yan. waaw show yi xanaa. booy loolu ba la doon tegal yëpp fibit la dara amu si woon. fibit dama doon fen kese pour nga sangu. fibit laa la dóor dara génn ci balaa nax teg la di pour nga sangu.